asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyooti di leen ziar comme ni ngeen ko xamee nag tey defe naa ne fi nu toog wala ki ñu toog su su ngeen ko gisee di ngeen xam ne koo xam ne la toog ak moom du doy macha allah leen koy ñaanal muy gudd fan ak wér gi yaram muy Alaaji Papa Dieng mi ngeen xam defe naa ne àddina xam nañ kooku de su ko présenté maanaam kenn du ko présenté kenn li waral jotaay bi nag le 19 juin di tombé ak samedi maanaam ñu tuddee ko drapeau lamb ba ña ko def ñooy. waa Vox Arena Mama Lamine bu Lamsar Garga 2 bu jàmbaar wrestling académie ne ca keppaaru Papa Sow bis boobu lañ koy delloo njukkal moom nag defe naa delloo ko njukkal ci làmb du lu bees waaye tamit dafa fekk ne rek lu baax du doy moo tax waa Vox Arena ñëw def loolu tey nag ñu seet si ko fii nga xam ne moo di ci këram fas yéene seq ak moom waxtaan papa maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi fay bu baax. Mhm. di nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu tamit seen i. Mhm. téléspectateur. Mhm. mbaa am nga jàmm bu baax a baax daal. alhamdulilah maa ngi bay fecc bay fecc yàlla na cant gi yaag barkent bi sallallahu alayhi wasallam defe naa ne tey bu ñu gisee décor bi na sa ginnaaw rek moo lay wan ne ça veut dire li ñuy waxtaane moom euh, ànd na ak décor bi muy làmb làmb lañ la tudde delloo la ci njukkal Mama Lamine Garga 2 Vox Arena def ko looy wax ci bés boobu nga xam ne bientôt mu yegg si di la 19 juin incha allah raw ci arène bu baax a baax a baax. micro bi. di leen ñaanal tamit euh, liggéey bi ngeen di liggéey yàlla na ko yàlla. Mhm. defar. amiin defar bu rafet bi ngeen yëg ko yéen seen bopp. Mhm. ndax li tamit lu muy liggéey war na si gis bopp. bien sûr. dëgg ki moom kër gi moo tax teg lépp en place. Mhm. mais ñiy liggéey ñooy acteurs yi. dëgg moom dafay toog di seetaan. donc maa leen di ñaanal ci loolu ngeen di liggéey yàlla defal leen ci jàmm ak salaam. ubbil leen ci bunt ak muur ak wërsëg. ñu noonu nag ci bés bi. bés bi. ndax bés bi tamit xale yi nga boole day nekk ay mbër yoo xam ni seen combat dafay neex. bien sûr man seen combat moom ma daaxal combat mag ñi. waaw ndax dañuy joxe li ñu am. li ñu am ba jeex. xam nga Mama Lamine la xam nga gërgër dee kenn du moom. ñu ñaari xale yoo xam ni keroog si présentation bi gis nga ku ci nekk li nga wax sa morom. Mhm. ak animation ba fa am ku nekk woy sa bopp teg sa bopp. Mhm. ñu war a bëri nag le 19 muy boo xam ne da ngeen ma ko tuddee. Mhm. donc maa ngi ko yëgal sama xarit yëpp bu kenn yëguma ko ndax yëgle paasewul toog ci télévision wax ko. bien sûr kuy sama xarit kuy sama mbokk kuy sama soppe kuy sama am di jàmm. Mhm. boole naa la ci bés bi même ñi ma xamul ak ñi ñi ma sëqalul ñoom ñëpp laa ci boole kon man leen koy yëgal ñoom ñëpp d' abord ñu ñëw ci bés bi pas pour man mais pour Equivox bi nga xam ni moo def loolu. Mhm. jëmale ma ko te ñoom ñu sama ay nit donc mbir mi ñun ñëpp ko bokk. Mhm. sama xarit yi ma am cër bi ngeen ma jox jox naa leen ko ñoom ñëpp. li ngeen ma tudd tamit ñoom ñëpp ku ci nekk tudd naa la ko bàyyiwuma kenn di ñaan nag bu bés ba jotee ñoom ñëpp ñu ñëw ca làmb ji ndax tamit bés bu rëy la. bés bu rëy mag bi am sax ci diggante Franc. ak Tyson 2 ak Tyson 2 bu doy waar la. Mm-hmm. Mama Lamine. Garga 2 ak Garga 2 mm-hmm. tijji loolu mu enlevé de rideau. dama ko bu mag mag la man yàgg naa seetaan yàgg naa gis ay champion yu bëri yàgg naa gis ay xale yu bëri yoo xam ne seen biir carrière avant même ñuy egg au sommet. Mhm. wane nañu ay jaloor yoo xam ne bi ñu ñëwee dañu egg si. Mhm. ndax boobu làmb ji mel woon nii. Mhm. xale bu dugg ci mag ñi rek c'est parce que da nga daan say morom ba ñu jeex. bien sûr loolu la Mbaye def. loolu la Pape Kane def. donc xale yi ñu ràññee ba ñu ñëw bu dugg ci biir tanoor yi ba am ci ñoom ndam. foofu la jaar. foofu lañ jaar bi ñëw nag fekkoon fi nag ay ndaanaan. ci mel ni Robert Diouf. xam ne tamit champion bu mag a mag la ku ci mel ni Double Less nekkoon champion bu mag a mag sans compter yeneen mbër yi nga xam ni tamit ñu ngi ci làmb ji ñoom Pape Diop. Pape Diop Boston Boston. Mhm. xam ko tamit comme ah, mu rëy la. waaw ci bëri laa wax. waaw ah. man maa ngi fàttaliku keroog bés baam ak Robert. Mhm. stade imam Iba Mar Diop keroog na làmb ji feese ak bëri bu rëy nga xam ne bëri nañ ko ñoom ñaar. Mhm. ak ku si mel ni Moussa Diame. Moussa donc ñooñu ñoo bokkoon génération ak Boy Bambara nag. Boy Bambara xam ne ñoom ñëpp bu leen dàqul bëri kenn dàqu ko ci bëri. dëgg la am ay bés ak ay takkusaan yoo xam ni lu nekk wane na ko Boy Bambara. Boy Bambara jël bi comme ay nawleem donc. Mhm. làmb dafa yàgg neex ci wàll woo xam ni boo boolee ñaari xale yoo xam ni dañuy bëri. Mhm. làmb ji day neex. kooku moo dàq combat bu mag bi. moo dàq combat bu mag bi toujours dafay am. ma léegi dama lay laaj si mag ñooñu nga tudd ak ñaari xale yi ñu la tuddee maama Lamine boo ma koy comparé par rapport ak mbër yooyu nga ma wax maanaam ban mbër lay jox gargade tamit mbër yooyu nga wax kan la ciy nurul ñoom ñaar. xam nga nag dañu bokkul génération te bokkuñu defe nit li naan cin bokkul cafin. Mhm. bokkuñu génération. bokkuñu génération waaw. ndax ñu la dañ daan bëri régulièrement fekkee lu bëri kaaw. lu ñuy xale. waaw mbër yi daan bëree. Mhm. dañuy bëri régulièrement. Mhm. ki yore drapeau bi. Mhm. amateurs yi dañ daan bëgg ak promoteurs yi muy bëri régulièrement. donc dañ daan am chaque dimanche combat boo xam ne ku yore drapeau bi il risque même de perdre le drapeau. bien sûr boobu doo yore couronne bi di toog un an deux ans di bëri benn yoon. duñ ko nangu. chaque quinze jours war nga bëri wala chaque mois. pour maintenir drapeau bi wane ni sa la nekk. loolu moo tax man la daawul yàgg ci kenn. daawul yàgg ci kenn non parce que ñoo bokkoon génération euh, dañu mënante woon rek mais kenn mënul sa morom. Mhm. wute na tey. xam ne da nga jël couronne bi toog un an doo bëri. kooku xam nga sa valeur boobu feeñul. <laughs> bu bëree waatee sax day fekk doo am compétition. ou bien tu prends du poids. Mhm. loolu mooy handicap euh, grand lutteur yi parce que li ñuy donc ils n'ont pas de compétition. te compétition dafa wute ak c'est pas la même chose. la même Mhm. kii ci maanaam état ngay nekk ba pare di compétir c'est-à-dire sa nawle boo xam ne li nga am la am li nga indi la am mhm. ngeen war a pour am ndam xam nga ko dafay doy waar bien sûr donc xale yi nga xam ne ñoo ngi fi nekk ku ci mel ni Mama Lamine Mama Lamine moom da di xale bu mën a song day xeex di song dama ko gis muy dóor wàcc di song Mama Lamine Mama Lamine euh, mën na ma mën naa ko nuróole mbër mu ci mel ni euh, Alioune Seye. numéro un. waaw Alioune Seye Alioune Seye ma juum Alioune Fall. Alioune Fall. Alioune Fall. ndax Alioune dafa naq woon a bëreel ndax du may dara loolu moo bu daan bëri mbéy gi daf indil problème. ok cër yi dafa jot ba pare mu mën a wetu. Mhm. mën a téye boppam ba pare mën a jàpp mën a bëri. ndax waalo waalo la. waalo waalo la. moo tax mbéy gi bu daan bëri moom li muy nekk champion yëpp dafa am ay difficulté ndax bëri ba dafa dafa mokk. Hmm. Euh, donc man peut-être ñoom lay nurule. Hmm, Maama Lamine ak Aline Fall. voilà. Hmm. garga nag dafa doon xale boo xam ne tamit xam nga dafa doy waar. <laughs> naan dollar li day yéeg ko ah, wàcc. te mën a lijjanti bëre jour boo ñëwee defe ni tey du baax keroog lay baax boo seetloo combat yi nga xam ne daf koy daan yëpp dafay bettaate. du doon favori. moo tax ku ci bëreeg moom boo nekkee favori rek bàyyil xel ci loolu. xale la boo xam ne dafa doy waar. gërgëd dafa mën a bëre xam ni ñuy rocce ko ni ñuy jàppee ni ñuy génne ci bëre ba demee ba jaaxle loo war a def. Hmm. xam nga bëri xel la. xel la way waaw boo naree jaaxle dafa noo war a def. noo war a def. boo tiitee tamit ci biir bëre bi di nga def loo xam ni sax xamaloo lu la ko def loo mais da nga naan mënuma ko. Hmm. ndax day fekk ñu egg ci yow fu sori. ok donc garga ñoo euh, maa ngi koy ndurolee ak euh, benn mbër bu dëkkoon Tëngéej. Hmm. te doyoon trop mën a xeex tur bi lay fàtte daan bëri maam góor moom tamit régulièrement mais daf ko daan andil ay problème mhm. bu daan ñëw taxi la daan gaare ci làmba jo naa turam mhm. xaw ma Ablaye Diop xaw ma mbër bu doy waar boo xam ne tamit dafa imprévisible donc xale yi am na ñu ñu nuróol mais bokkuñu génération génération parce ñële ay athlète pur la ñu yëkkati poids pour am pour am te ñële tamit amuñu woon li am tey c'est-à-dire matériel bi am tey de préparation et de musculation amul woon. ok amoon na sax mais bariwul. bariwul kon daal amul ñu ko daan def Ngor ba Kandji daan na ko def stade Iba Mar Diop donc ñoom Youssou Dieng ñoom Mame Gorgui Ndiaye. Mhm. ñoom foofu lañ doon yëkkatee ay poids. Mhm. mais am na si ay mbir yoo xam ne ku ci mel ni ay mbéyge yi bëgguñu loolu du ñu yëkkati poids. laal poids voilà une fois lañ koy laal peut-être à l'entraînement mais dañu amoon volume. Mhm. boo xam ni ñu mais dañu am yàq. donc c'est un peu différent. ok Mama Lamine bu dee bind mbéyge lay nuróol bind. ah Mama Lamine. waaw ok garga bu dee bind maam gur gi la xaw a bind. donc xam nga bokkuñu style. Mm-hmm. ku ci nekk am nga ci style mais ku ci nekk tamit am nga sa man-man. Mm-hmm. vraiment la combat bu compliqué la. bu compliqué combat bu mag a mag la. waaw werante bi bëri ci fi mu nekk nii. dafa doy waar. bëri na lool. boo déggee keroog seen face à nga xam ni combat bu doy waar la ñuy joué ñoom ñaar. barki démb dimanche stade amateur yi werante waa nga mel ni tulleeg non bëri bi bëri bi tey waa nekk ñaari xale yoo xam xam xam xam ku leen tànnal euh, <laughs> <laughs> la leen jox de non combat dëgg la ndax am nañu ma dégg ku mel ne Aziz Ndiaye sax kera laaj naa ko mu ne combat boobu amul combat ko dàq non man man wax naa la ko te yow mi wax nga ah, tuddee tax bu ñu ko tuddoon keneen sax loolu laay wax dëgg la combat bu doy waar la combat la boo xam ni ñoom ñaar ñëpp dama ne la ku ci nekk mhm. xam nga ni sama rom mën na laa daan ndax mbër day xalaat ku ci nekk xam nga ni sa morom mën na laa daan waaye nag ñoom ñaar ku ci nekk a xalaat tamit ni muy moytoo ba ki muy bëreel li mu bëgg du ko jox. ndax ki ngay bëreel li mu bëgg boo ko joxee da daan. da daan da nga koy xañ. bien sûr wala nga nëbb ko mhm. bu demee ba bëgg koo jël par force nag foofu mun nga fa am dara. ndax bëri tamit dafa am temps. Mhm. dafa am boo war a dem. dafa am boo war a marché ci adversaire bi dafa am heure boo war a taxaw. Mhm. dafa am boo war a xeex. am heure boo war a bëri. Hmm. te loolu yëpp yombul. yombul ndax ki nga sëqal du la ko may. yaa koy lijjanti comme dem yi rek ba am ko. ba am ko te exemple bi ma lay jox rek mooy bëri Modou Lo ak ak ak Baye Mandione. Baye Mandione waaw waaw. gis nga kër muy doon daanaka yëpp xeexul ak Baye Mandione. déedéet waaw dafa su moom kër ak loolu am kilifa. Hmm. bi ñu ko wër ko ne bul xeex ak Baye Mandione amuloo benn raison xeex ak moom te nga jàppanteeg moom loolu daan ko bëri jéeg moom waaw ndax dafa ñemee te dafa mën a xeex. Hmm. te mbër dëgg la Baye Mandione waaw Baye Mandione bi daf ko am am li mbër di wut yëpp mi ngi loolu am na am xorom mhm. bëri bayre mhm. mën a fecc mhm. mën a bàkku mën a bëre mën a xeex waaye du bëri xel xol lay bëri xol lay bëri loolu rek ay handicap non su ma ko yore woon nee naa ko kenn du la daan Njoon <laughs> ndeysaan am na solo léegi Franc Tyson 2 tamit soo ma amoon loo ma ci loo ma ci waa ma ci eh, ñamal lan lay doon combat bu doy waar moom tamit ndax nga Tyson 2 faux maigre la te bul fàtte bëri bi mu bëri assurance. waaw def na échec ci digganteem ak Elton c'est que dafa xamul naka la ñuy bëri ak poids lourd. mais bu keroog bu fekkoon keroog téy na boppam. Mm-hmm. moytu Elton. Mm. wan ni yaa ma ëpp yaa ma mag yaa ma jiitu ci làmb jox ko làmb ji. saa yu saa yu ko bëggee indil jafe-jafe mu dellu ginnaaw mbaa mu moytu s'il le faut sax mu jël ay carton mm-hmm. ba Elton énervé bëgg a jeexal làmb ji mu am ci dara. dafa am combat xam ne da nga koy négocier doo ñëw jaay jàmbaar parce que jàmbaar koo koy jaay dafay fekk nga ne yem doole waaw fekk mu ëpp doole sut la uh-huh. ëpp la poids ëpp la uh-huh. ci côté yëpp uh-huh. nga bëgg xeex ak moom kooku dafay metti bien sûr bu amee xeex sax na doon benn ko xeex bu mu yàgg c'est-à-dire nga dóor jàpp song nga dóor song jàpp mm-hmm. comme béygey keroog bi muy bëri ak double les seen bëri boobu ñu naan verdict bi la ñuy xaar ba tey ndax bëri ba amul une minute mm-hmm. ndax bëri bu jëkk ba dañ ko bëree ci environ deux minutes trente mm-hmm. mais moom keroog bu muy song Double Less prix ba une minute trente la ko bëri ak moom dafa réduire temps bi. Mhm. ak vitesse. Mhm. ndax ndax il faut bëri poids il faut nga am vitesse. Mhm. temps bi ngay agir ak temps bi muy réagir day fekk nga egg ko foo xam ni bala moo defaru bëri bi jeex. donc Mbaye Guèye keroog loolu la bëri ak Double Less. loolu la bëri bëri bu mujj. parce que ma dégg ñu di dànkaafu maanaam ñu bëri naan Franc mooy favori parce que mu compétition moo lii. mooy favori am ne tamit ñu ngi dànkaafu Franc. xam nga lan mooy nekkoon na tey xam nga lan mooy favori. waaw palmarès bi bu ñu ko tegee ki gën leen mooy favori. Franc dafa bëri neuf combats am neuf victoire. ba tey daanoo guddee kii bëri lu ma treize combats quatorze euh, treize combats ou quatorze. Mhm. am ci deux deux défaites. ak beaucoup victoire. donc c'est un champion. Mhm. champion bu mag a mag la champion la boo xam ni. Mhm. dafa mën a bëre. Mhm. mën a xeex. Mhm. te néewul doole. déedéet rëyul mais néewul doole. Tyson 2. Tyson te nag dafa jaar équipe nationale. parce que équipe nationale lu bon bon boo fa jaaree dina am. loo fa <laughs> jëlee am loo fa jëlee. ndax bëri bi bëri jàppante la bëri simple la. te ku choisir parmi les meilleurs lutteurs du Sénégal c' parce que am nga ay qualité technique. donc dafa ay qualité. ku ñu la jaar équipe nationale rek moytu nañ ko la ñu rek. Mhm. équipe nationale de performance bu mag la. donc moom dafa am loolu. Mhm. wane mi ngi bëri xale boo xam ne dafa bëri compétition. waaw Franc de xam nga doon xale rek déjà. avantage jël ay tournois yu bëri. non ah, doole ji nga am boo nekkee xale boo jëmee mag day na. te Franc ci dugg doolam mhm. doole. waaw gàttul. déedéet am na taxawaay yi mën na bëri ndax gis nga drapeau yi muy jël ci bëri simple bi donc bu ñëwee ci bëri door bi parce que ku mun bëri simple bu munee xeex rek du neex a daan. du neex a daan su mënee xeex. Uh-huh. su mënee xeex. su mënee xeex. waaw xeex moom boo ko mënul boo dajee mm. xeex kat. bëri dóor waaw mun da lay gaañ. bien sûr te nga koy mën. Mm. gis nga tafaatin bërim ba ak bombardier na mu demee keroog. waaw xeex ba bombardier jàmbaar la mais mënul xeex. ndax xeex dafa am yoon xeex da ngay xool di dóor di moytu ñu bañ la door mm. loolu moo tax ku ci la mu man hmm. bàyyi ko du côté. Hmm. dem ca la mu mën la mu mën nga jéem ko wuti. voilà jéem a négocier foofu wax nga dëgg looloo am. combat bu doy waar la. am na solo <laughs> léegi ban appel ngay lancer sa euh, nit ñi parce que Alaaji Papa Dieng defe naa ne ku ne Alaaji Papa Dieng xel dana dem ci Bécaye mbay sama xarit xel dana dem ci du jaan jekko sama xarit ndax ne na yaa ko yaa def président des amateurs lu moom moo ma ko wax. dëgg la du jaan jekko mën naa lim ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. dëgg la defe naa boobu ñooñ seen bés lay doon. a ah, du jàng moo amee bis bésam la. waaw ndax barki démb bi ñu ko tuddee làmb maag moo ma ànd. waaw waaw waaw. daje nañ fa. Hmm, waaw wax nga dëgg arène nationale bi ko Fallou su amee bés daf ma ciy hmm. ndax nee ma man maay magam. waaw keroog bi may jox micro kenn joxuma micro kenn dëgg la. en direct ci Sud keroog ci la Sénégal yëpp. ak bitim réew xam ne may président des amateurs. Hmm. ma ko sax parce que nga ñëw tàgguma waa ne daa ñëw ba sa kër de. dafa ñëw sama kër daa dugg ba sa biir kër. ni mu dafa am fu muy damay dem élection. waaw. ma ne ko taggu si bi nga ma tàggu rek day euh, day na par par ndax yow dama yëgal kon te dama lay wuy si wuyu si bi nag comme que du ma ko mën a def dama la ciy ñaanal ba pare tamit euh, conseiller la jox la conseil conseil yi ma ko jox mu def ko bu mu demee it la ma ko wax gis naa ko xam naa loolu ma ko wax mu gis ko moo mu def ma xarit mu téele ah, xam moom dafa dëggu waaw waaw moom dafa dëggu duudu dafa dëggu dëgg la li mu bëgg wax daf koy wax dëgg ba pare nag mën teraanga duudu lu mu la wax def koy def dëgg la bu la joxee rendez-vous quatre heures du matin demal nga xaar ko day ñëw même boo amee obstacle dina ñëw ndeysaan moom qualité yooyu la am moo tax mu mun jiite mbooloo la ba pare alalam du ko fekke dëgg la ak temps lu mu dëgg ci amateur yi jóg mm-hmm. lu mu mun def day def bu def lu mu mënul mm-hmm. xam nga kon nit ku baax la dëgg la loolu moo tax bu ci am ñaari kii parce que keroog ca présentation ba waroon na ñëw mais dafa amoon empêchement. bien sûr jooy na ko ba tàyyi ko sax man ne ko fayoo ma sama bor. Mhm. dama damay defante. <laughs> Ah. fayoo ma sama bor mais nee na ma moom fi lay yëngu. <laughs> fi lay yëngu bés la bekkaay moom xam nga. waaw bekkaay. jarul la yëgal yëg na ko. déet bekkaay moom yaay moom defe naa. mooy bekkaay moom bekkaay benn la ñu. waaw yaag bekkaay moom. sama xarit la sama sama rakk la et tout. Mhm. wax te bu neexee yàlla li ma ko xamee ak yéene bi ma xam ci moom lu ci war yëpp dina ko def ak Medina tamit waaw foofu nga xam fa ay mag yoo xam ne ñoo ma yar man tamit ma am fay rakk yoo ñoo ma yar maa mhm. leen yar mhm. te Medina nag benn bopp la dañuy jàppalante ci lépp mhm. ña fa nekk ñu yàlla suturaal foofu ñi ngay jàppale wa Medina sans exception sans exception ci mel ni Cheikh Seck ma def lu baax waaw ci mel ni Youssou Ndour mi ngi def lu baax te ñoo ñëpp dañoo war a feeñ ci bi ñoom ñëpp dañoo war feeñ ci bis bi. waaw Youssou Ndour a feeñ. non bien sûr daf si war a bi bésam la. Youssou ndax waaw ndax man magam laa te maa ko formé. waaw fu mu toog ne maay référence am. dëgg man ko nag dama koo xam ne dañ koy naxe <laughs> ay jëf laa bëgg. kon na ko jëf ci bis bi le 19 ku ci mel ni Cheikh Ba tamit. Cheikh Ba waaw Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Ah, ak Seydou Gueye. Seydou Gueye. nga xam ne tamit moom tamit responsable politique la. ak Bamba Fall bi nga xam ne mooy maire ba fu ma gis nuyu ma ni ma grand na nga def. Mhm. nekk xale bu yaru xale bu mhm. baax. donc man ñoom ñëpp sumay xarit lañu suma rak lañu ak ak tamit euh, Pathé Ba. Pathé Ba xam ni moom tamit am na fi ay mouvement politique. bien sûr xale bu dynamique. xale boo xam ni il a beaucoup d' avenir. Mhm. sans compter Youssou Diall. Youssou Diall oui. ak Simon Ndiaye. Simon ah ay xale yoo xam ni sumay rak lañu. dëgg ay sëñ Modou. xam nga ay jaaxa. Ah, ay Séga Bass Camara. Séga Bass. bu ma nekk lim sax damay juum te daan ko ma mere. Abbas Ndoye ci la bokk defe naa de waaw bien sûr. <laughs> Abbas président écurie Fass. écurie Fass waaw. xam mooy sama écurie. waaw waaw membre <laughs> laa ci écurie Fass. écurie Fass waaw ñu bokk.